24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa ami internaute du Sunugal 24 dañ leen ak jàmm ci seen xibaar yu gën a fës ci bésu à tey bi ñu fas kenn ko dóore nag ak jiya ba nga xamante ne moo amoon ca diwaanu Tiwaawan foofee nag fukki liir ak benn génnoon ci àdduna loole nag metti woon lool askan a Sénégal gannaaw a division des investigations criminelles mi nga xamante ne nag jamono ji mu yor bile l'enquête daal dinay nag teg loxo ñaari soxna yoo xamante ni ca bile bërëb la ñuy kenn ki nag mu ngi tudd AD kenn ki tudd CMB ñoom ñoom ñaar ñi leen nag ñu nga ca diwaanu euh, dikk gannaaw enquête bu yaa boo xamante ne nag division des investigations criminelles daal dina koy nag tàmbali fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu euh, Dakar soxna yooyu nag ñu téewoon leen en garde à vue gannaaw ba nag di amee jamono ji nag ñu ngay wëyal bi le enquête fa nga euh, waaye nag li ñu mën a jàpp ci mille mbir mooy nag yooyee liir nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xamante ne nag les échos daan nañ koy biral ci bésu atay bi nee nañu nag denc nañu leen fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Tivaouane niki démb ba 15h15 jotee lañu leen nag denc fa nga xamante ne moom mooy ca sëg yu xalxus nekk ca diwaanu Tivaouane seen i waajur ak seen i jegeñaale ñoo leen nag gunge woon ak ci seen kër gu mujj loolee nag ñu ko amaloon niki démb ak coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ba léegi nag pënd ma wureegul ndaxte nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy layool Ousmane Sonko daan nañuy jot nag ab nouvelle bu naqari gannaaw rek juróom-ñetti fan ci weer avril bëli ñu ak ah, génn ay avocat Ousmane Sonko ah, jëloon nag ab bataaxal daal di koy jagleel doyen des juges ngir nag ñu déglu ki nga xamante moo fi nekkoon ak ah, capitaine bu gendarmerie di Seydina Oumar Touré moom mi leen nag nga xamante ne nag mu nga woon ca section de recherche jiite woon nag enquête bu soxna si Adji Sarr da tuumaal leader bu Pastef mbirum viol moo xamante nag dafa ànd ak ay menaces de mort waaye nag fukki fan ci weeru mai bii ñu génn ñi nga xamante nag ñoom ñuy xelal Ousmane Sonko yemuñu ca dañuy jël nag ab bataaxal daal def juróom-ñaari laaj yoo xamante ne nag dañ ko doon a sàkku rek ñi nga xamante ni ñoom ñi attakat yi daal di koy laaj ki nga xamante ne moom mooy capitaine Touré gannaaw loolee parquet bu Ndakaaru daal dinay lank nag ne li ni mel du fi am ministère public daal di ko ci jàppale mu nekk nag coow boo xamante ni nag ba léegi jeexagul a jàpp nañu ne nag capitaine Touré nekkul koo xamante ne nag ay waxam war nañu ko mën a jox ay faux témoignage lañ ko jëlee fa nga xamante ne nag moom mooy ci diwaanu gendarmerie ba mu jiite woon loole nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ñoo ko daal di xamle ñu wax ci coow bu ñu doon àtte fa nga xamante ne moom mooy ci tribunal flagrant délit bu Dakaru foofe nag benn soxna buy wuyoo ci turu Ndeye Dambaaw Diaw moom moomee nag la ñu fa doon àtte ci mbirum sàcc boo xamante ne nag amaloon na ko fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu mbir yi nag mu ngi xewoon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi nekk ba 14h jotee la dugg nag ci benn boutique fa nga xamante ne moom mooy ci doonu Petersen foofee nag mu fekk fa benn soxna boo xamante ne nag amoon na yeneen client yu mu doon jaay mu jubali fa nga xamante ne moom mooy ci étagère yu ñu wékk sag ya ak dàll ya foofee nag bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yu Les Échos ne nañu nag ci la bi lee soxna tànn nag benn peeru dàll ak ñaari sag yu ndaw yoo xamante ne nag dafa dem ca kees ga mel na nag kuy fay client yi bëri lool mu daal génn bile bi yóbbu nag ak yooyu bagage gannaaw soxna soosee ba mu wàccee na mu koy faral di defee daal di saytu yooyu vidéo de surveillance yi nga xamante ne nag defoon nañ ko ci bile boutique ci la ñu gis nag soxna sa na mu sàccee li nga xamante ne moom mooy yooyu bagage ñu toog ne pat di ko xaar ñeenti fan la ñu si teg nday dambaaw jaw daal di dellusiwaat ci bile bërëb ñu daal di koy nag teg loxo won ko nag bile vidéo mu nekk fa nag di jégalu waaye nag mujj ñu ko baal dañ ko jël nag yóbbu ko fa mbaxane doone benn ko doon nag atte fa nga xamante ne moom mooy ci tribunal bu Ndakaaru nee nag loolee ñu koy toppee moo ko def muy mbirum ak càcc ba tax na sax mu nga doon a ñu daal di koy baal waaye nag ay avocat am tamit loolee lañ doon sàkku a ci jamono boo ne nag procureur ba mu ngay sàkku ñu daan ko ñetti weeru kaso yoo xamante ne da koy tëdd waaye nag verdict ba mujj na wàcc juróom benn weer la ñu ko tëj yoo xamante ne nag suuf si la fas yéene nekk ñëw Serigne Mountakha Mbacké fii ci diwaan wa Ndakaaru Ndakaaru loole nag amoon ajjuma samedi dimanche waaye nag ni ki démb ci dimanche ji la njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall demoon foofee ca diwaanu Masalikul Jinaan ngir taseeg nag ki nga xamante ni moom mooy xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Mbacké foofee nag ay diig yi yu am solo la fa njiitu réew bu Sénégal daal di def moom Macky Sall nee na nag dina taxawal ab bërëbu ab fajukaay boo xamante ne nag dafay jokkoo ak li nga xamante ni moom mooy jumaa bu Masalikul Jinaan mu nekk nag loo xamante bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi bi mën nañ koo jariñoo ngir a faju loolee nag njiitu réew xam ne ne ko ni kiy démb mu ngay rafetlu nag liggéey bu am solo bi nga xamante ne jëwriñ mbakki yu fay daan na koy amal fii ci diwaanu Ndakaaru moom mi nga xamante ne nag moo fi teewal xalif général kullu murit loolee nag Macky Sall mu ngi ko xamle nee na nag jafe yi nga xamante ne nag mu ngi koy jànkonteel fii ci diwaanu Ndakaaru yëg na ko jafe yi nga xamante ne itam ñu ngi koy jànkonteel lu jëm ci boobee jumaa loolee lépp yëg na ko te dina ci andi a safara loolee ni ñu ko waxee mu ngi amoon ni ki ca diwaanu Masalikul Jinaan ba fa njiitu réew mi nag demee seeti ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mountakha Mbacké xibaar yi ñu daal di dem ca bitim réew foofee nag benn doomu Sénégal la ñu fa teg loxo fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Roumanie diirub ñaari weer mu nga ca kasto ba moom mi le nag nekk ab footballeur boo xamante ne mu ngi wuyoo ci turu Mamadou Lamine Abba police bu Roumanie teg ko loxo gannaaw rek ba muy bëgg jóge ca boobee dëkk ngir dem Hongrie loole nag ab bataaxal la bi nga xamante ne moom mooy Horizon Babacar Seye daal di génn ngir daal di yëgal li ni Sénégal bi ndaw nag am ñaar fukki ak ñett nekk ab joueur boo xamante ne nag mu ngi ci club de troisième nekkoon fële ca douane Roumanie bëggoon a dem ca Hongrie ngir nag tenter fa li nga xamante ne moom mooy chance am ci diiru ba ñaari weer boobee ba léegi nag mu nga ca kaso ba loolee nag euh, maître Boubacar Seye moo ko daal di euh, xamle gannaaw rek ba mu bëggee nag opinion nationale ak internationale daal di li nga fële ca diwaanu Roumanie xibaar yi ñu daal di koy tëjee ak benn avion boo xamante ni daal nay daanu ci nappal Napal jamono ji nag fukki néew ak ñeenti la ñu gisagum gannaaw rek avion bi nga xamante ni daan na fay daanu loolee nag di avion boo xamante ne nag mu ngi bokk ci compagnie aérienne bu Tara Air loolee nag ni kiy démb ci dimanche bi la ñu biral yi lee xibaar a bile avion nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni jot nañu ko nee nañu nag ñetti membre yu bokk ci équipage ba ñoo ci duggoon ak i doomi aadama ak juróom ñeent waaye nag bi la avion dañ ko fekk mu daal di daanu tàkk ba jeex ñeneen ñi nag ñu ngi leen di wër ba léegi gisaguñu leen loolee nag ki nga xamante ne moo yor kaddu l'armée bu Napal moo ko daal di xamle moom Nayirane Silval jàngeen jëf mbokk yi loole nag moo fi yeesandi woon ci ay xibaar ci bi nga xamante ne moom mooy Sunugal 24 ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba incha allah jërë ngeen jëf